يذهب بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا ñaanal yàlla ci taaru alquran yooyu mu jàng yal na ko yàlla defal ndam defal ko xéewal ci barke sidina Muhammad aleyhi salaatu wa salaam du ñu sori si wax ji lu dul jox président comité d' organisation El Hadji Fallou mi nga xam ne moom mooy président du comité d' organisation ziar bi ñu wax ñu wax ñu li nga xam ne moom mooy solo ziar bi. aouzu billahi samiil alim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin seydil xalq xaatimi naabiina wa imaamil mursalina sallallahu alayhi wa sallam Euh, ni ñu koy defee saabu bu bis bu set ak mu ne dafay yokk ak mu ne dafay doublé euh, su ko defee ñoo ngi ñaan yàlla ñi war a ñëw ak ñi war a dem ñëpp fu waay mën a jóge rek te jëm si fi yàlla dafa la xéewal ka ñëw taasu si barke bi delluwaat ci jàmm. li ñu def loolu jox kàddu gi ki nga xam ne moom mooy imaam bokk ci ñi nga xam ne ñoom la góor gi teg ci kanam dinañ wax programme mu bés bi ak bis bi lu ko tax a jóg kon ñu jox kàddu gi ki nga xam ne moom mooy imaam. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ziar bi programme bi jaamu yàlla rek la jaamu yàlla ci bés bi nga xamee ne mooy yowma ashura yaakaar naa ne li ci borom xam-xam yi wax bëri na dañ koy bàyyee rek ah, Mouhamad Camara mi doom ci kër gi te yor daara ji moom dana leeral ci wàllu bés booba li nga xamee ne yàlla Euh, wàccee na ko ci xéewal ci bés boobu aoudu billahi samii alalim min charri alcheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain kon bés bi bés bu am solo la woor si baax na jaamu ci yàlla baax na rawatina itam ziyaara si boroom xam-xam te ki ñuy ziyaara si ku nekk xam na ne boroom xam-xam la alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala aadil amin wa alihi wa sahabati man ihtada bi adim ila yawmi din allahuma yaxfir lana warhamna wa tub alayna innaka tawwab ya rabbi allahuma inna nasaluka fi asiyi lyowm wa fi asiyi sahr wa fi asiyi sanna si'atu lbadani walxaafiyati wasalaamati wal ijaabata wal xabula wal najaati min fi dunia wal axira fir lana warxam yaa man xulta fi kitaabillahi ad'uuni nii astajib lakum bisa saaliki bada'anii fa innii qariib ujiibu da'wata daa'i falyastajiibuu lii yaa man xulta fi kitaabillahi walillaahi al-asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa yaa rabbi amartanaa bi du'aa'ik qad da'awnaaka kamaa amartanaa fa ajibnaa fa ajibnaa fa ajibnaa kamaa wa'adtanaa yaa zal jalaali wal ikraam asaluka min asaalika nabiyyunaa والمرسلون والأولياء والأخطاء والحارفون بالله تعالى وعبادك الصالحون ونستغفرك كما أستغفرك به ونسألك الأمن والإجابة وزن تدبير إنك على كل بإجابة نعم الولى ونعمة إلى هنا نعمة الهين وحدث الجفن وخرن وخرن من يقي إلا أنت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تأخذ سنة ولا نور إلى هنا أخلقت الملوك والأغنياء أبوهم وأنت بابكم وأخت النسائهم فأنا سائل واقف ببابك ولا ترضنا خائب معذور من بابك إنك لو سئل خبر عملك يا أرحم amiin yaa rabbal aalamiin dégg suñu baay bi ñaan yi mu ñaan di ñaan yàlla yal yàlla nangu ñaan yal nañu yàlla mi ñu teewee ko ay déwén yu bare bari di si woon képp koo xam ne rek jullit nga di wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu ñu ngi lay woo ci bés bi Bichri TV vous offre une toute nouvelle application